illa kaydu seytaane kaana bay yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ne nañu ko jógal ah ñun nag am nañu sécurité bu ñu ko jógalee ndax lii kat boo ko jógalee ci amuloo sécurité dañu lay rey kooku amul benn problème dañu lay faat léegi loolu mooy dañu lay korte nga dee wala ñu boole ak jinne léegi mu taal sa kër yàq la complètement ñun nag faalewuñu leen kenn mënuñoo njibar kenn mënuñoo korte mënuñoo sol ngelaw faale wuñu jinne yi nga xam ne ñoom ñooy dox ci lii faale wuñu nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ci lii ñoom ñoo fi nekk di yàq réew mi di nopp xale jigéen yi xale góor yi leen foye di tas jéeg di nangu jabaru jàmbur yi di jaay këru jàmbur yi di yàq butigu jàmbur yi yàq entreprise yu jàmbur yi salfaañe marché bi yàq tefes gi ñoom njibarkat yi ñoom ñooy liggéey loolu loolu moo tax tey ñu jógal leen ci kàddu borom bi taaraka wa taala jóg bii ñu leen jógal nag maanaam xeex awliya seytaan nii rek lañ ko mën a defee bagage yi ñi nga xam ne ñoo ngi làqatu ci biir kër yi di ko ci nax nit ñi maanaam tey moom la ñuy teg ci mbedd mi xamal leen ni lii mënul dara li mu mën daal mooy tas sa yaakaar rek soo amee problème ex police rek ñu daal dindi nga feebar dem hôpital ñu dindi ko booy dem màkk doo ko yóbbu soo dee ñu tekki ko naka lay régler problème du ànd ak yow dee du ànd ak yow feebar du ànd yow dem kaso du ànd ak yow tukki mais xanaa amuñu xel xanaa doomu adama yi amuñu xel bagage bii nga gis nii mbalit mii nga xam ne ñetti sénégalais yu la romb boo xoolee seen ndigg yi mu ngi fees del marché bii boo fa duggoon tey jii bu ëllëgee camion nga fay génne loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk bagage bu doy waar a ngi nii amul benn njëriñ nga ne ma waa léegi man dinaa la laaj su ma tekkee sama galaaj yi nan laay def man la da ngay gëm yàlla ànd ak wóolu ko boo tekkee sa galaaj boo yeewoo rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamina sant borom bi taaraka wa taala booy wàcc lal bi nga ne onze billahi min asheytaani rajim nga jàng faatiya benn soo mokkalee ayatu kursi nga jàng ko jàng xul a onze bi rabbil falaq ak rabbin naas loolu day na sëkk yàlla moo lay teel boppam ci lu yomb kenn mënu laa kort kenn mënu laa kenn mënu tas sa yaakaar loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk lii ngeen di gis nii bagage la boo xam ni bu génnoon ci réew mi tey jii sénégalais yëpp nekk nit kooku amul benn werante waaye xoolal rayante gi ni mu bëree xoolal warante gi ni mu bëree xoolal yàqante gi ni mu bëree xoolal doomu adama yi ni ñu ñàkk fulla kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu waroon a topp ñu nekk ci jàkka yeeg jumaa yi sol ay caaya ki grand mbubb nekk ci télévision bi di lëmbal fu nañu cëpp cëppi foofu parce que tey ñu li ñuy def ndax seytaane moo leen dugg amul benn njëriñ dem nañu ba doomu aadama yi bu njëkk boo solee caaya sol sama sabadoor wala sol caaya sol grand mbubb koo dajal mu jox la ñaari loxo ndax li ko waral mooy day jàpp ne yow kilifa nga waaye fi mu nekk ni xale yi mujj a ñëw kenn bugg ci caaye kenn bugg ci grand mbubb ndax ñàkk fayda gi mag ñi nekk ñàkk fayda ñenn ñi nekk ci télévision bi seytaane dugg leen ñuy fàcc di lëmbal mel ni ay jigéen laa lay wax nii lu waral loolu parce que lii boo koy dund da ñàkk fayda loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk bagage a ngi nii boo xam ne amul benn njariñ bu lu yàq suñu diine rek xoola xàmb yi tegg sàbbi yaa ngi dégg jox wala nga dóoba ci oto yaa ngi dégg xoolal su mu nekk nii lii nga gis ne xoolal xaatim yi nga gis ne kat lii ni moom mooy ay xaatim lii la ñuy dugal ci ndomba yi di ci nax nit ñi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk gàllaaj buñ ko xamoon dëgg dëgg xam kon galankor lañ koy wooyee ndax dafay galankor sa diggante ak sa borom boo ne yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain wax ji du nekk dëgg lu muy tekki mooy yow rek la ñuy jaamu ci yow rek la ñuy sàkku ndimbal soo ko waxee yàlla mu nekk dëgg rek yàlla teg la ci yoonu mustaqim waaw boo ko waxee ci la rek non non boko ko waxee menko nañ ko sori parce que boo ko laalee rek day maas dégg nga boo ko boo ko mu la ci mustaqim amul ben problème te bu la yàlla tegee ci yoonu njub da ngay bëgg lu baax di bañ lu bon da ngay bëgg lu baax di bañ lu bon loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kon mbokk yi nañu seetluwaat benn wax rek ngay wax yàlla mu nekk dëgg rek mu daal lay defar ci wa nastain lu muy tekki mooy yow rek la ñuy jaamu ci yow rek la ñuy sàkku ndimbal bu fekkee ni dëgg la yàlla subhanahu wa taala dana la teg ci yoonu siraatal mustaqim bu la tegee ci yoonu njub da ngay nekk nit ku baax di bañ lu bon di bëgg lu baax di bañ lu bon di bëgg lu baax kon nañ ci bàyyi xel bu baax mbokk yi liggéey la ñu nii boo xam ni du tey de liggéey bu yàgg la parce que daara ji nga gis nii def na ay at yàgg lool day soog a fii rek ndax ñun xeex xërëm ak njabar moo ñu jógal njabarkat yi ci boppam lañ bëgg a génne Sénégal loolu mooy ndax nit ñi sonn nañu doomu aadama yi tumuranke nañu ñu ngi yàq seen liggéey di yàq kër yi fi mu nekk nii tey jii jigéen bu ci bañ wujju da ngay dem seeti njabarkat yi ñu njabar sa wujju ba mu dee wala mu génn dëkk bi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk affaire wujjante maanaam tey jii njabarkat yi ñooy arbitre bi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk moo tax njabarkat yi seen bopp yàlla dafa waxoon nañu leen rey ndax njabarkat amul benn njariñ kii bind nag moo ci gën a garaaw maanaam ki nga xam ne moo yore xaatim bi nii moo ci gën a doy waar ndax da nga ciy gis koo xam ni da dégg mu ne la ah man nag affaire béjjën yi gëmuma ko quoi affaire xàmb yi moom gëmuma ko waaye nag man soo bindee alxuraan jox ma ko dama koy naanaa dama koy sango ah mais loolu dafa mel ni faux billet ci xaalis rek xam nga faux billet ci xaalis maanaam faux billet niroo naa xaalis mais boo demee banque kenn du la ko jëlal loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk képp ku bëgg a mucc ci lii da gëm yàlla ànd ak walu ko nga ne ma léegi nan laa ñaane yàlla buur bi taara koo taala man la da gëm yàlla maanaam boo yeewoo ngane alhamdulillah rabbil alamin sant borom bi tabaraka wa taala boy wàcc lal bi ngane auzu billahi minash shaitani rajim nga jàng fatiha ben so mokale ayatu kursi nga jàng ko jàng falakh ak naasi do loko malayka mo le dog da ngay melni comme ñun ni rek da nga am sécurité xol ñu fu ñu neex lañuy taxaw di ngat ndebar kat yi ñi may deug njabarkat yaa ngi fi ñu ngi ci kër yi fi mu nekk ni tey ji fii nga gis ni réseau bi am na njabarkat yu fi nekk ñu ngi may dégg bu baax bu fekkee mën nañoo kort maa ngi tudd Mamadou Lamine Diop juddu ci le 23 mai 1960 yóbbu ko njabarkat bu la neex nga jox ko nga xool moom moo ci dee ndax ñun yàlla la ñu àndal loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mbokk yi amul benn njëriñ laa la wax ni